Hélène ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yaa ngi bokk ci kuje gi bokk itam nekkoon itamit député ca pencu ndaw réew mi tey ji Hélène ñu gis ne li nga xam ne moom mooy rapport Cour des comptes daanaka mooy actualité bi rapport yooyu le ñu daal di koy génne waaye nag mu am yéex-yéex gu ngand boo xam ne am na ci askan wi ñu bëri daal di ci am ay jiixi jaaxa tey lan moo ci sa sa gis-gis. waaw euh, rapport Cour des comptes bi ñu ngi rafetlu euh, li mu génn. ndax euh, ñu ngi ko doon xaar bu baax a baax a baax léegi nag yéex bi mu yéex loolu nekk na problème te loolu lu ñu war a joyanti la euh, yéex bi ndax mu ngi aju ci ki nga xam ne buñ ko ko jébbalul kenn du ko mën a fësal ndax nee nañu loolu la leen loi bi wax Mm, su fekkee ci loolu la aaju war nañoo xool nu ñuy dindee loolu ba nga xam ne Cour des comptes saa yu liggéeyee liggéeyam ñu mën ko fësal jébbal ko kañ ko war a jébbal muy yoon ndax Cour des comptes dafay def ay rapport waaye su day mën na saisir procureur pour wax ko ne lii ma gis kat war nga ci def ay jéego pour ñu leeral ko ba xam ndax ki luubal biñ koy ji ndax dëgg la wala du dëgg loolu euh, war nañ ko seetaat ñu xool tamit Cour des comptes naka lay lëkkaloowee liggéeyam ak assemblée nationale ndax dañuy voté lu ñuy wax loi de règlement mooy maanaam li euh, gouvernement bi liggéey ci at yi ñu xool ndax xaalis ba ne nañ ko utiliser ndax euh, jaar na yoon ñu voté ko mais su fekkee ni que rapport ba balaa muy ñëw fekk na voté nañ loi boobu mais naka la député yi di xamee ndax la ñuy voté jaar na yoon loolu yëpp nekk na ay problème man li ma xalaat mooy Cour des comptes mënut a ñàkk ci réew mi ba nga xam ne luubal gi mën fee dellu ginnaaw ak doxalin bu sell bi ñuy wax mën a am cour des comptes mënu fee ñàkk léegi li ñu war a def mooy ñu bañ a lëkkale cour des comptes jël cour des comptes maanaam euh, jël président tënk ko ci agendaam wala ci jotam wala ci temps bi nga xam ne moom la xalaat ne moo ko neex pour ñu génnee rapport yi loolu moom mënut a nekk ndax moom moo fi woote woon ne dafa bëgg gouvernance maanaam yoren bu sell te bu set yorin bu sell ak bu set amu fi ñu ngi woote nag setal dëkk bi loolu nekk na loo xam ne lu am maanaa la waaye li ëpp maanaa moo ñu setal jikko yi setal yorin bi ndax nag mbalit mu nekk ci biir yorinu kopparu réew mi war nañ ko balaye ba mu set ndax mooy tax ba ndóol bi war fee wàññee tey jii mu ne dañuy teg ab commission moom njiitu réew mi ngir li nga xam ne moom mooy rapport yooyu le ñiy xaarandi na recommandation yi ci nar a tukkee tey commission boobu noonu ñu nax a teg est-ce que am na solo ci yow waaw commission day saa yuñ ko déggee dañuy tiit ndax commission daal li ñu ci seetlu mooy soo bëggee euh, maanaam nasaxal ab euh, ab ngir rek nga nañ ko jox commission commission ba ne du du ca yey du ca yàbbi ba mu mujjee faf naxsaay man xalaat naa ne Cour des comptes am na gëdd ak taxawaay boo xam ne nekk maanaam euh, levier bu am solo ci mbirum euh, euh, maanaam bonne gouvernance ba nga xam ne tey wàññi sax gëddu Cour des comptes la ngay jël la nga xam ne moom la génnee nga ne danga koy joxe commission waaw commission boobu mbaa ñi luubal duñ ca bokk rek ah xaw ma kan mooy jiite commission ba ak nekk waaye day na waar daal man daal li gëm mooy tey Cour des comptes génnee na rapport am am na ci yoo xam ne sax tey jii boo leen yóbboo yoon ñu ne la mbir ya kat weesu na yoon topp leen dañuy wax prescription maanaam day wéy na mbuus léegi nag balaa loolu yëpp di ci am nañu jël mbir yóbbu jébbal ko yoon ma ñëpp ñu dem fa mbaxana nekkee benn ku ñu tuumaal soo defutee ñu setal la boo boo defee nag ñu ñu ñu ñu jaar ak yow fa ñuy jaar ak ñëpp waaye bëgg ko jox commission temps bi di gën a dem ba mbir yi su amee juróomi at wala fukki at kenn dootu ci mën dara loolu na xalaat naa ne xel mënu ko nangu. tey ñu bëri ñu ngi wax ci li nga xam ne moom mooy mal gouvernance am na loo xam ne teg nañu ko boobu ba léegi di dialogue national waaye dialogue bi mu mel ni sax moom ba mu tàmmalee ña ko séq ci boppam ñoom daal euh, dialogue bi dafa dog dog dogoon daal seen seen diggante tey mu mel ni loolu li muy renvoyé ci askan wi mooy ni que daal ñoom seeni soxla ak soxla si politique yi daal ñu ci dafa xaw a ute benn côté bi. waaw man dialogue bi euh, xalaat naa ne lu war a mën a am la. moo tax man de bañ ma ca woowee wuy ji naa ca. door ndorteli nag xaw na am ay euh, nu ñu koy waxati ay euh, xat-xat la laa koy wax wala ay ay ay ay ay ay waxante yoo xam ne amu fa woon place. bu fekkee ne intérêt askan wi rek. moo fa taxa a dem Euh, yenn wax yi mën na faa ñàkk ak yenn taxawin yi mm. waa xalaat naa ne nag ci ndorte la rek lay yem ndax fi ñu toll nii commission yi teg nañ leen teg nañ sous commission yi ah ku ci nekk ci fa nga la nga ca war a def sas nañ la ko euh, ñetti weer lañ ñu may xalaat naa ne war nañ doy sëkk ak barke Euh, ñu mën a dem tibbi ci li nga xam ne moo fi ne ndax du ñu dem di inventé waat loo xam ne amu fi assises nationales yi liggéey nañ ci lu am solo téenéer liggéey na fi lu am solo am na fi loo xam ne ay programme la yoo xam ne ñu ngi fi ak ay politique yoo xam ne war nañ ko xool su fekkee liñ ciy joyanti ñu xalaat ko teg ko ci taabalu njiitu réew mi muy ci wàllu politique muy ci wàllu social économique ak ci wàllu corinu réew meeg yorinu gox goxaan yeeg euh, wàllum culture ak sport ñu jël ko ñu ñu koy ñaan nag mu wone ne am na lu ñuy wax volonté politique pour jëfe ko mm. ndax loolu moo ëpp solo mais xalaat naa ne ci ñu toll fii ci liggéey bi war nañoo mën a génnee fii ak biir ñu wax ay maanaam recommandation yoo xam ne buñ ci tegee buñ ko doxalee dina mën a maanaam jëmale euh, réew mi kanam yëfu koppar yañ fa doon wax nag mm. man pour man ay yëf yoo xam ne la amul bopp amul genn mm. ndaxte wax dëgg yàlla man mi fan man de nee naa fa waaye gisu gisuma fa ku wax koppal en euh, waaw wax dëgg yàlla loolu moom wax dëgg yàlla ay wax yoo xam ne la foog naa ne ay wax yu waxu yi ay waxu yàqkat rek la woon waaye man gisuma fa daal loo xam ne jar na wax tey ji Hélène Tine ñu gis ne njuuj njaaj geek euh, naka sudul noonu yoo xam ne ñu ngi koy wax ci gouvernement bekk régime bi bari na torop ki nga xam ne moom mooy euh, taskatu xibaar bi di Pape Alé daal di bind ab téere boo xam ne scandale au cœur de la League waaye ba mu ko bindee ba tey daanaka euh, ku nekk ngi yuuxu di jóg di wax rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ci ci nguur gi ak ci gouvernement bi euh, tey euh, livre bu mel noonu tey yow naka nga ko jàngatee d'ailleurs sax ñuy fàttali ni bokkoon nga ci invité yi. waaw mu nekkoon lu ma neex ma dem fekke ko. maa ngi sargal bu baax a baax Pape Alé ci lii nga xam ne moom la xaatim teg ko. ndax li ci xaatim bi solo mooy lan mooy gis nañ ne deux mille quinze ba léegi ñu ngi deux mille vingt mooy juróomi at yàllaa ngi nii OFNAC di nga mu nekk loo xam ne euh, maanaam ci coobare président la ko créé ñun ñu voté ko parce que maa nga woon assemblée bañ koy voté mm. addina bi yëpp rafetlu ko ba ñu yokkal ñu ay poñ ci wàllu bonne gouvernance nee nañu ñu ngi redoubler depuis ñeenti at waaye at euh, poñ ya ñu amoon noona ba mu yokk création OFNAC ca la bokk buñ euh, bu nag defee liggéeyam maanaam soit ay ay ay citoyens sénégalais ñoo ko saisir pour ne ko demal lam li ñaar ci mbóot yu corruption wala euh, ay nit saisir ko wala mu gis ne ay doxalin yu ñaaw mooy mal gouvernance yi nga xam ne moom la Cour des comptes wone lëmbe réew mi nag tax ba tey ji ndool gi gën a yokku of nag def rapport am depuis deux mille quinze ñu téye of nag am sañ-sañu jébbal procureur ne ko ñun gis nañu ay mbóot gis nañu ay luxóor ci tel kër mm, euh, mais procureur lu tax depuis juróomi at ba léegi yeeyu ci yàbbi ci moom nee na jot na rapport ba lu tax yeeyu ci yàbbi ci lu tax demul defi enquête yi war pour xam ndax li ñuy tuumal waa jooju ndax am na rax ci dolli of nag defa recommandé woon ne waa jooju bu ko kenn jënkati euh, maanaam responsabilité ci biir nguur gi ñu dol ñu hmm. ñu ñu ñu jox ko ba jokkal ko Mm. waa mais Pape Alé livre bi lan la njëriñam njëriñam mooy mu fàttali nit ñi ne fàttali nguur gi ne li yoon ne lii mu ngi leen di xaar pour ngeen jukki ko mm. ñu leeral askan wi ndax li ñu tuumaal am na wala amul loolu bu ko yoon defoon tey kenn du fi wax ne lii euh, rapport ba ab fromage bu bënn la wala euh, ab tubaaba ko bindoon wala mm. ab euh, extraterrestre wala ab esquimau moo fi ñëw bind ko mm. rapport ba rapportu institution la ñu jébbal liñ ci war a jébbal yoon yoon lu muy xaar pour def liggéeyam moo tax li Pape ale def nekk lu am solo ndax président kat moo fi dige woon ne dafay def maanaam yorin bu sel bu set boo xam ne du du luubal du ca am koppar ga dinañ ko yóbbu fañ ko war a yóbbu askan wi gis ci boppam mooy gestion sobre et vertueuse boobu ba léegi kenn gisu ci dara. askan woowu Cour des comptes confirmé na ko. Hmm. of nag confirmé na ko kon nag nag Pape Alé li mu def lu am solo la ndax nag hmm. buñ toogee juróomi at sentu séntu gisuñu dara. Hmm. yaakaar naa ne livre bii dina tax ba nit ñi yëngu wax nit ñi ndax lii dafa ñuul wala dafa xees ndax dégg nañ ne jënd nañ fo ba jënd fa ñebe kilo quatre mille quatre mille cinq cent askan woowu ngay wax ñu am ay jafe-jafe yu metti fu mu toll ni Hélène ñu gis ne courant gi nga xam ne yokku na ak yeneen ak yeneen agression yi am ci dëkk bi mu mel ni daal fu mu toll nii foo sànni mbart mu tàq euh, tey ji li nga xamante ni euh, moom mooy euh, xeex bi gisuñ ci daal kujje gi sentiruñu ci kujje gi torop fu mu toll ni activiste ñu ci mel ni ay Guy yu saañaak ñoo lank ak yooyu ñoom ñooy yëngu daal mais yéen daal sentirutuñ leen torop lu waral loolu waaw man Euh, maa ngi rafetlu bu baax a baax a baax taxawaayu maanaam activiste yi ak société civile bi ndax nag politique yi nag dañ leen feelu si ñoom dañu feelu si politique bi ba ñuy campagne 2017 législative lu ñu fi waxul amul wax nañ fi loola lépp ñuy ñuy xeex tey ba ñuy campagne 2019 li ñuy xeex ni yëpp tey politique yi wax nañ ko mm. wax nañ ci ba géex tey bu politique yi jógoon génn campagne sam su mbaat xeex dañuy ne xeexu campagne ba la ñuy continuer kon damay rafetlu ñoom ñu jël maanaam relève bi ndax ñun nag en 2009 politique yi ñoo xalaatoon assise national dox ko ba jébbal ko société civile ñu wàll ci xeex bi ba le 11 juin mën a am tey nag bu fekkee ni que société civile ak euh, maanaam activité yi jël nañu xeex bi dina tax ba ñu xam ne du xeexal politicien du xeexal campagne du xeexal ñu ñoo xam ne dañu ne dañoo perte seen campagne waaye du xeex boo xam ne la mooy wane ne lañ doon wax 2017 ak 2019 dëgg la ñu ngi nag ñaawlu li ñu téye Guy Marius Sagna parce que nag euh, euh, ëpp na. Mm. Euh, di ñaawlu li ñu teg askan wi ci yokk-yokk yi loolu nañ waxante dëgg te dañ ko mos di ñaawlu donc man pour man dañoo feelu si si xeex boo xam ne ñu ngi ko doon xeex. ñu jëlee woon ne xeexu politicien la kon su ko ñeneen feelu see aujourd'hui de mënuñu lu dul rafetlu ko. Euh, question bu ñuy mujjee Hélène moom mooy tey li nga xam ne moom mooy euh, wa balaa ñuy dem ci question bu mujj sa Seck ñu gis ne moom nga euh, jàppale woon moom nga jàppaloon tànk ci élection yi ñu génn waaye moom it mu nekk ci tekk tekkaaral ndax yaa nga yaa ngi déggante ak moom ndax tey itam yaakaaroon ni tekk tekkaaral ngi mu nekkee aussi mu ngi waaj a ëpp daal. waaw xam nga tekk tekkaaral. mel na ni message la tamit mm. ndax bu fekkee ne lépp li nga xam ne moom lañuy ñuy jooytu tey ak di ko xeex tey jiitu woon nga ca di ko wax mm. euh, bu ñu yeewoo ba nit ñi di ko yuuxu tamit boo nee tekk dafa mel ni ñëw li ma wax dañ ko feelu si mm. feelu si homme politique yëpp ci loolu nga xam ne yuuxu nañ ko loola nag mën naa ne message la euh, moo ëpp sax wax ndax waxoon nga gis ne la nga wax euh, tey jii feeñ na mm. euh, loolu tamit option am la euh, dama ko respecté man ci sama wàllu bopp lëkkaloo ba ñu amoon ak ñoom muy ci suñu kuréel googu nga xam ne moom la ñu sampoon législative ànd ca présidentielle teggiwuñu ca tànk ah saa yu ñu amee nag opportunité ñu ngi ciy waxtaan li am solo pour ñun mooy askan wi intérêt askan wi ñu mun koo ñu mun koo sàmm ak continuer Euh, teg tànk si intérêt bi nga xam ne mooy intéret réew mi ak lu jëmale réew mi kanam te yaakaar naa ne loolu mu nga ca moom ba léegi. fi ñuy mujjee Hélène moom mooy li nga xam ne mooy euh, feebar bi di coronavirus am ca Chine ay euh, étudiants yu nekk foofu le di wàllu ngir daal ñu indi leen fii ci biir réew mi waaye moom njiitu réew mi nee na daal li ni mel mënta nekk ndax Sénégal amul yooyu le matuwaay naka nga jàngatee mbir moomu. waaw maa ngi ñaan yàlla feebar boobu yàlla musal ci Sénégal. mu bañ fa yegg si yàlla Sénégal tontu président nag bi nga xam ne moom lañ dégg mu yëkkati ko démb mën naa ne scandale bu mag la ndax fukki gune ak ñaar bu fekkee ne mënuñu leen wollu ci foofu ñu nekk kon ndaw réewu Sénégal tey na fi ñi fi nekk nekk ci insécurité ñi fi nekk nekk ci ay coono yu mag war nañoo tiit war nañoo tiit ndax bu ñu nee Sénégal am na taxawaay ci wàllu diplomatie bu mat tey xalaat naa ne Sénégal am na ay dëkk yoo xam ne ay xaritam lañu wala ay naataangoom lañu yoo xam ne am naa ak ñoom ay relation yoo xam ne ñu ngay jëli seeni ay nit war nga mën a yow nguur wax ak ñooña ba ñu mën laa indaaleel say gune France bu lu tax France bi nga xam ne mu ngi fi am intérêt yu bëri mënuñoo jëlal suñu fukki gune yóbbu leen istre ba muy yóbbu ay nitam waa waa dëkkam seet leen seet seen gu yaram bu ñu leen waree mettre en quarantaine ñu def ko bu ñu paree Air Sénégal day dem France mu jël ngune ya indi leen Algérie mii sax nee na yóbbu na avion ba jëlaale ay doomu yeneen dëkk kon tey bu fekkee ne ñoom taxawaay bi ñuy wax ci diplomatie Sénégal mu ngi koy continuer di am waruñoo tumuranke pour kuy indi fukki xale ak ñaar yooyu waaye yëkkati naan mille euros xaw ma mille dollars jox leen ko ba pare bàyyi leen ci insécurité bu ni tey seeni mbokk jaaxle kon képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi insécurité bi lëmbe réew mi Euh, war ngaa tiit ndax yow xamuloo tey bu ëllëgee ndax duñ la ne moyen amul pour ñu régler loolu. Hélène euh, ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf. ñu ngi rappelé ni yow yaay euh, kon Hélène Tine nekkoon député ci assemblée nationale. nekk nekk coordonnatrice su benn mouvement bu ñuy wax mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail. voilà ñu lay jaajëfal bu baax a baax <laughs> Hélène Tine honorable di la jaajëfal ci wuy gi ñuy si tey si suñu matinale.